ñun ñëpp ci yàlla lañ jóge ko waaw waaye xale bi dañ koo dóor dañ koo dóor xale bi ànd na benn moromam julli ji na juma bi mu julli jee juma moromam bi ne ko damaa dajale woon feeraay ci école bi léegi bu ma dajalee feeraay ci école bi buñ jullee ba pare nga jàppale ma xaritam bi Pam njaay ñu dajale feeraay ñu julli ba pare mun na ko jàppale ma mu jàppale ko ku ñuy wax jogob yu leen sàcc te jogob ci koñ bi la dëkk ay doomam xam nañ ko bi histoire bu amee ba mu yuuxoo sama doom sàcc ñu jàpp sama doom dóor ba mu dee Pam Ndiaye daw jogob doomam yi sax ñoo ñëw si kër gi man boobu man gisuma mais sama wujju peccorgo yi si kër gi gis nañ ñu ne ñëw yónni doomam yi ñu ñëw wax si ne mun Ndiaye nga fee jël na feeraay jàmbur dóor nañ ko ba mu bëgg a dee mu nga ñëw tëdd man bi ma dawee dem fekk sama doom mu tëdd fekk naa sama doom dee na bu yàgg waaw amee wuñ ko loolu yaree wuñ ko ci loolu wa ay parents am liggéey lañ xam ay papa mi fi nekk liggéey lañ xam man mi yaayam liggéey laa xam bëgguma alalu jàmbur ci loolu tamit lañ ko yaree du tardé waxtu bi juróom julli dem jumaa ñëw waaw jàngi wàcc bañ nañ ko sax xale bi dañ ko dugal cour ci max weer bu dee 5000 lañ ko doon fayal pour rek mu bañ am jot di dugg ci yenn détails yi waaw papaam sax du tëdd guddi papaam du tëdd da koy woo ne ko acca dama tëdd bu ko defee mu dem tëdd papaam doo a tëdd booy bi amul woon benn benn benn problème ñi ko xam ak koñ bi yëpp xam nañu soxlawul alalu jaam man fekkuma fa nit néew laa fekk fekk dóor nañ ko man ba may xool sama doom sax ñu ko dugal ci mbedd la ne woon mais ñu dugal ko ci benn kër koo xamante ne kër gi kooku baax na lool mu ne xanaa kii nit du nit ba ngeen jël ko dóor ko sànni ko nii ci mbedd mi si la ko diree dugal ko ci biir këram ma ma demee seet sama doom loxoom yeeg ginnaaw yeeg yëpp a xoosu yëpp a xoos ñu dóor sama doom ba mu bëgg a dee man dañ fekk ko fi mu tëdd sax bakkan da doon génnee deret waaw ñun daal dem nañ ci yoon ñu demee ci yoon yoon daal jox ma kii rendez-vous ba ma demee 10 heures mu jox ma 10 heures ma dem 10 heures toog toog toog toog toog toog ba ay midi waa ma kii yoon ma gis ko ma ne waa fu ñu toll ñu ne ma léegi da ngeen di demaat ba ëllëg ngeen ñëwaat ñu demaat ba ëllëg ma ànd ak papaam ñu demaat toog toog papaam toog ba sonn mu dem gis commissaire bi mu demee gis commissaire mu ne ko sama affaire doom fu mu toll mu ne ko jël lañ corps bi yóbbu ko dakaar dañoo def fi autopsie boo xamante ne kii wul la ñuy demaat seet ko Dakar papaam tamit loolu naqari ko lool même ginaaru jàmbur sax boo ko jàppee balaa nga ko yóbbu dakaar war nga kaa yëgal ay waajuram waaw te docteur Bangoura ba mu ko seetee nee na dóor la mu leer ñu leer nañ lool ñun ay waajur yoo xamante ne ñun duñ fen duñ sos Mor Sène buñ ko laalul woon dóoruñu ko ñu xam ne yàlla moo ko dogalee noonu mais Mor Sène dañ koo dóor ci kaw dóor gi tamit ñun gëm nañ yàlla xam nañ yàlla loolu la dogal waaye gis nga doomu aadama da ngay wax sa digganteeg yàlla ak sa tàqulaay taalaa xale bi mënul judd ci koñ bi yaru ci koñ màgg ci koñ bi ñoom xam nañ lépp lépp xam nañ ko. bàyyi leen ak yàlla rek yàlla mu nga xamante ne daal mooy baram mbaar mi moom mi ngi gis yépp man xam naa ne moom bu ñàkk amee man maa ñàkk ak papaam ñun ñoo ñàkk ak ay famem maa ngi teg lépp ci loxol yàlla bàyyi leen lépp sun borom waaw yàlla na ko leeral ñu def ñaawteef boobu. yàlla na leen yàlla leeral waaw